waaw liñ fa liñ fa tax daje tey lu am solo leen war a xam ne fii Sénégal am na kuréel bi nga xam ne ñu ngi koy tuddee conférence des chefs de parquet chef de parquet nag mooy procureur yu mag yooyu ngeen di dégg commencé ko procureur généraux yi ba ci procureur de la république yi ba ci délégué di procureur nga xam ni ñoom li leen yëkkati mooy président de la république ci suñu système démocratique mooy définir politique yépp politique réew mi yépp te justice ci politique yooyu muy définir la bokk bu nee nag man lii mooy sama mëbët lii mooy sama gis-gis ci wàllu bu ne euh, wàllum détournement wàllum droits humains moo tax kii nekk sama wet ndax droits humains lay toppatoo wàllum bon gouvernance moo tax mu nekk sama wet ndax loolu lay toppatoo bu waxee ba pare ne man lii lii laa si jublu mu ne yéen ministres yi na ngeen ma doxal loolu bu ko waxee ministres yi ba pare ministre tam gestu ci procureur yooyu ne président de la république de lii la ci soxla yéen lan si mooy seen gis-gis ci wàllu yoon bi ngeen xam ni yéen yéen a ko war a doxal mais loolu nag buy am faw waxtaan di am waxtaan boobu moo indi lii lii at mu ne dañuy toog ñu seet nag suñu liggéey bi di ko caytu ñun suñu bopp du ñu xaar rek waa droit de l'homme yi ñu nee ñu ah lii de doxul wala lii de baaxul ñun suñu bopp ci suñu coobaree bopp ñooy ñu toog ne léegi li ñu fi liggéey ba tey ana lu mu njëriñ ana fu fu mu gàllankoore ana fu ñu ko war a yokkee ana fu ñu war a oyofalee ba doomu aadama bu ne buy yeewu fii ci Sénégal sa wàll ak sa yelleef nga xam ne yoon may na la ko ñu ni justice ñu mun la kaa jébbal nga nekk ci jàmm parce que même bu dee kaso nga nekk war ngaa nekk jàmm ci biir kaso bi c'est pas parce que yaa ngi kaso ko jàmm war la fa fekk wala waroo fa fekk jàmm lii moo indi daje bi ren nag ñu jàpp ne war nañ waxtaan waxtaane ñaari tomb yu am solo benn tomb bi mooy encadrement de la détention maanaam détention mooy ku ñu tëj kaso ngay xaar atte atte guñ la mais dañ lay tëj kaso li tax nag ñu lay tëj kaso lu bëri lu bëri lu bëri moo koy indi dafay fekk ni juge bi mu ngay enquête te bu fekkee ni mu ngay enquête yow yaa ngi ci biti lépp lu mu teg ci enquête jéego bu mu teg yow nga yàq ko enquête bi lu mën a sotti te booba am na benn doomu aadama boo xam ne yow yaa ko yàqal te moom it mu ngi xaar justice jox ko wàllam ak yelleefam moo tax ñu ne léeg-léeg juge bi day yaakaar ni kii ñu tuumaal kenn waxul ni moo def dañ ko tuumaal rek war na ko mën a téye ba mu paree enquête ba loolu mooy détention provisoire mais dañu ne loolu su fekkee ni juge bi daf koy def nañ fexe bu mu nekk ci diir bu gàtt ndax léeg-léeg dañ leen di yóbbu kaso ñu yàgg fa li ñu gën a jël misaal mooy chambre criminelle chambre criminelle mooy ku def jéye bu gën a rëy ci jéye yépp parce que jéye yi dafa am benn bu tuuti am benn bu yem am benn bu mag bu mag bi mooy ku rey nit ku ko faat walla def lu mel noonu bu boobaa dañu naan yow mën nañ laa tëj fukki at mën nañ laa tëj sax sa diiru dund te kon juge bi bu yaakaar ni fukki at mën nga ko tëdd bu yaakaar ni sa duuru diiru àddina mën nga ko tëdd mu naan ah kii de am naa jot mën naa nekk di ko enquête ñetti at juróomi at ñu ne ko déedéet su fekkee ni moom tëdd na euh, euh, jàpp nga ko juróom-ñetti at huit ans mu dem ci fu ñu attekaay ba fu cëppaandaw kooku ne ko defoo dara waa juróom-ñetti at yi mu tëdd nag metti na donc dañuy naan am na wala amul yéen a ngi saytu parewu leen nañ ko gàttal ci ñaari at ngeen pare li ngeen def bu fekkee ni ñaari at yi parewul ñu yokkal leen juróom benn weer ñaari at juróom benn weer nag fa la mën a yem loolu nag lañ doon waxtaani léegi est-ce que loolu fii Sénégal ak juge yu doyul yi ak euh, euh, euh, palais de justice yu barewul yi est-ce que mun nañ doxal loolu ci ñaari at ak juróom benn weer ma tontu ne loo gis danga koy waajal te loo gis danga koy commencé njëkk ko commencé boo commencé wul doo mën a xam sax fu mbir mi sooxee ba ngay ba ngay ba ngay ba ngay wëlbati ko donc dama ne nañ commencé buñ commencé ba xam ne fii dina sooxee fii dina gën a tardé fii mënul ne ñoo mën a rectifier ni koy tubaab yi di waxee la loi n'est pas inscrite dans le marbre lii yoon teg yoon mën na ko teggi teg leneen yàlla na fekk nag loolu muy teg leneen na gën a baax na gën a rafet na gën a yemb te na gën a gaaw loolu rek kay waxtaan bi donc loolu ñu indi woon tey ci suba ñuy waxtaanee loolu commencé nañ ko ñu ngay eggale léegi ànd ak euh, procureur yi fi ñu jóge Sénégal yépp ma leen di sant di leen gërëm ci seen taxawaay ci seen pas-pas ci seen it euh, conscience bi ñu am maanaam xel bu ñu am que ñoom li ñu am lu métte métte la parce que mooy atte doomu aadama di ko teg ay daan te loolu ñoom ci seen bopp dañ koy xool xoolaat ko bu baax a baax balaa di àgg ci loolu loolu moo doon waxtaan bi waaw mais loolu balaa CEDEAO ñun suñu bopp defal nañ ko suñu bopp man yaakaar naa Sénégal fu ñu toll tey ci àq ak yelleef doomu aadama amul kenn muy fii muy bitim réew muy CEDEAO bi nga xam ne ci lañ bokk mooy dëkku tubaab yi amul kenn ku ñu mun a jàngal dara ci lu baax ci lu ñu war a def ci anam yooyu néew ma ne lépp baax na de mais lu bëree ñun def nañ ko suba ba léegi yéen a ngi fii dégg ngeen ay nit yu fi taxaw wax yu wax yu am solo mais est-ce que lii Sénégal sax pare na pour di ko def ndegam ay bitim réew ñi nga xam ne ñoo ñu ëpp doole ëpp ñoo am am ak alal defuñu ko mais dañu ne faw ñu def ko bu ñu ko defee daana wuti ji pexe bi ba loolu mën a taxaw pour dellu si nag dellu si ci loolu nga wax ñun fii Sénégal am nañ loolu sànq maa ko doon wax ci nasara boo demee suñu cour suprême am na benn commission bu fa toog jëloon jéggi fii frontière di dem CEDEAO di am na benn commission bu fa toog amul dara lu ko yëkkati lu dul ku ñëw nga indi sa dossier fekk dañ laa tëj nu la tëjee ba pare ne yow defoo dara nga naan man kon man réew mi amal na ma ndàmpaay loolu daa mës a am sax Sénégal ci jamono maam ya amoon na mais dafa fekkoon loolu mbir mi dafa doon da nga daan dem tribunal di layoo ak nguur gi nga daaneel ko mu def appel wala moom mu daaneel yow nga def appel mu yàgg ñu ne loolu yëpp jaratu ko dem leen cour suprême cour suprême am na commission boo xam ne loolu rek lay saytu donc boo leen ñëwee bu fekkee yéen a am dëgg ñu jox leen dëgg donc loolu dugg leen am na ay doomu Sénégal yu bëri yoo xam ni dañ leen tëjoon ñu dem ba ci mujjantal ba ñu bàyyi leen ñu dem foofu ñu jox leen seen ndàmpaay ñu am ko donc CEDEAO ak ñàkk CEDEAO yëpp benn la mooy Sénégal daa dëggal ni yëllëf ak doomu aadama euh, euh, àq ak yëllëf doomu aadama dañ koo samp war koo taxawal war koo dund te ñun dañ koy dund non amul benn rupture de confiance xam nga rupture de confiance lu koy indi mooy ku xëy suba naan man soxlaatuma justice ku xëy suba rek ne man sangu naa ba set julli naa li ma war a julli jaamu yàlla maa ngi dem mais man justice bi duma mu fa mës a taxaw mais justice ku ko yuuxu ak ku ko yuuxuwul yépp gëm nga ko yaa fay dem feem nit ñi ñu fay ñëw nag ñu dañ leen di dalal seet li ñu indi lan la saytu ko bu baax lu ci nekk dëgg ñu jox la ko li ci nekk leneen ñu ne la kii leneen la dootul dëgg loolu rek mooy justice te loolu alhamdulilah mu ngi am ci Sénégal dina gën a wéy di am dina gën a wéy di dëgër dina gën a wéy di euh, ba ñëpp gis ci seen bopp parce que loolu rek moo ñu yëkkati en tout cas loolu la ñu président digal te ci loolu la ñuy liggéey.